Opposition United Democratic Party has started sharing the registration details of the people they claim were illegally registered voters. On Saturday, the party shared details of 256 voters who they claim were registered by the Independent Electoral Commission IEC out of official registration period. The publication of the detail has divided opinions among Gambians with some suggesting it is illegal. But speaking to the journalist last week, UDP leader Hussein Udabo insisted that there was nothing wrong in publishing details of people who were engaged in fraud. an kake a dorong an no politico like ñing kibaro gambie banko kanga a sotale dorong a ñing aɓe dendin hani bi um, a décembre a fort presidential a o an ɓeya jela komin ko ñing kuwol tata ñamin a diyamo siyata um, a ñing a kuwo ñing kono komin ko a ñing carte fayo ñing amanta anin tiling o ñing kono an ñing parti bami yalon komin koy ka fay komin ko de united democratic a ñing parti a udp um, ya mitin jama soto a nyen place soto a ila nyen party leader min keta a nyen baba Dabo yati um, pour que information wol dol sia a with the press a uh, to uh, itolie korosir uh, korosir o minje tandi ko men ko election o nyen manta nyen anen wala ya nyen kuma kangol dol findene ka fo ko men ko IEC um, uh, the, the, election electoral uh, commission comme bulobe dundi nyen akuo nyen konola comme min ko ñe modol be jele mi yalan komi ye carte fayle andun uh, it was not actually right um, uh, like it was illegal because ye vote scarcol uh, ñing dol um, uh, ñing jele mi yalan komin ko anin uh, silomanta wala mo kibarote mi yalan komin ko nga sotale ñing politico la karola uh, bi uh, sister linguer ak bourguewel Gambia politique beneen yoon ah, kon sama gars yi ñoo ko déggandoor li nga xamante ne nii ah, sister Black Queen doon na ko wax ci kàllaama Mandinka uh-huh. mu nekk mbir moo xamante ne nii xaw na yéeme tuuti ah, ñun ñëpp wu wuñ ne jógee nañ ci politique ci ay weer yu xaw a néew ci uh-huh. ginnaaw waaye ba léegi rek am na ci ñoo xamante ne nii ci ay political parties lañ bokka ñu ngi am ay kiisi kiisi ci mbiri politique boobu noonu bante ci mbiri sànni karta boobu noonu uh-huh. suñu waxee political yaakaar ne political party yépp ñoo ci bokk waaye déedéet UDP ñoom ñoo nekk di am sikki sàkk ci loolu ba léegi ah, gannaaw bi nga xamante ne ñu ngi ci am sikki sàkk nag ki nga xamante ne nii moom mooy seen njiit di lawyer Ousseynou Dabo di suñ maam moom nag nee na lu toll ci ñaari téeméer ak lu teg ay nit ñoo xamante ne ni sànni nañ karta te ñooñu amuñ kayiti gambien duñ ay gambien waruñoo sànni karta loolu nag nekk na mbir moo xamante ne nii mu ngi koy ñaawlu ñu ngi ciy dégg ay wax yu baree baree bare mu nekk mbir mu xaw a doy waar ah, ba tax na ci kanam tuuti dinañ leen ci gën a indil leeral ngeen ngeen xam ah, sunu maam Lawyer Ousainou Darboe daal moom li muy wax noonu fan la ko teg incha allah. waaw dëgg la sister liggéey ak Black Queen waaye man daal Black Queen dafa mel ne moom mën na jëla de naka la fa taajoo noonu. si daga Black Queen moom. léegi organise la. Ah. si daga dama xam ne Black Queen am na lu koy manage. da toj kaas Ah. loo miin si loolu naka la. ah yow dafa mel na ngay manaj de. damay manaj ko dawal aja ne ko mu jox ko naka. ah waaw. <laughs> Eh. Mhm. ndeysaan lu neex rek du waaye nag dëgg fa yàlla affaire yi day doy na waar moom mbiri politique dafa xóot. Mhm. te lu ci waay di wax rek dina ko waxee ñoo xamante ne bu ko keneen déggee war na ci mun a am ay yeneen jàngat. waaye nag definitely Gambie moom politique nañ mu ngi ci biir te ñu ngi ci biir politique te politique day jeexagut ndaxte waxoon naa la fi daa daan as far as national assembly eh, election bi council sax meewa si jeexagul bi jeexagul ci at bi nag ak at bi ci topp lañu def lépp la ñu fooyee si ñu bàyyi coow ah, loolu daal dafa nekk wax boo xamante ne xam nga dafa am solo ah because nga ñeen ñëpp ne comme nga ah waa bu ñu yóbbee seen pétition bi ah to en soo ne xam nga pour gars yi mun a a speak out ah, pour wan nit ñi ne comme xam nga some nga xamante ne ñoom xam nga dañ feel ne the election was not actually free and fair but ah, ah they were not actually granted the opportunity a won askan bi so for that being the case xam that is the reason why xam uh, the, the uh, leader of the United Democratic Party muy use këram xam nga di actually uh, give out these informations waaye xam nga lii problème mooy soo ko seetloo fu ne boot am na ñoo xamante dañuy wax ne ñoom seen card seen voters card uh, is illegal te fekk sax faru ñoo nguur xëy na ñoom lañ fara bi ko tey soo nekkee na tey yow da nga am jëkkër dëkk Gambie am jëkkër sa jëkkër war a am responsabilité. wala nga am jabar sa jabar am responsabilité. nga bokk feneen beneen parti war ko utal kayit moom mu war a dem taxaw. parce que intérêt njabootam la.